mu tàmbalee ne suñu borom dafa bind mbindeef yi bind leen ñuy ay catégorie yu wute tolloowuñ ay daraja def leen ñu gënante ci biir ñooñu mu bind mu tànn ci ay yonente ñoo xam ne ñoo ko gënal ci mbindeefam yépp te biir yonente yooyee nag mu tànn ca kenn dañu wax sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam def ko mu gën ci ñëpp ci coobareem jagoo ko moom suñ borom wastanaatuka li nafsi jooju mu waxoon Moussa ci yonente bi da gën a yaay moom da koo bind ngir moom ngir topp ko ak soppaloo ko mbindeef yépp yaral ko boppam tamit yar ba gën a rafet yabal ko muy yërmande mbindeef yépp xam ne yonente bu mu doon budul moom rek ci saw xeet lan la yónni waaye ku matale nag nga xam ne ak yonenteem ci ñëpp la dali moom ci nannum moom la xéwal gu réy googu mu def nag muy yónni ko muy boole ñaar ci kaw suuf mooy jàngal nit ñi ak yar leen te jàngal nit ñi ak yar leen ku ne xam na ne kenn mënu koo ñàkk du jullit ñi dong waaye àddina bi kenn mënu koo ñàkk dëkk bu mu mën a doon ak doonte duñu jullit bu ñuy seddale réew ma danañ ca boole koo xam ne moo féete woo ak tarbiyat wa taxalim moo féete woo jàngale ak yar loolu nag moo tax suñu borom yónni yonente bi ngir mu génne nit ñi ci lëndëm lëndëmi àdduna yóbbu leen ci leeruk xam yàlla mu leeral loolu laqad manna allahu ala almuminin is baasa fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin nee na ci ak réer la fekk di li ñu waaye mu boole di leen jàngal ak di leen yar muy taalim ak taskiya ñaar yooyu mënta jàkk ñàkk moo doonoon méccam mboolem nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi wutu yonente bi ba ni mu agsee ci Sayxul Xadiim moom itam gis ngeen jëfam ci wàllu jàngale yar ni mu def suñ borom tamit bi mu defee yonente bi mu xeet li ñu dañoo digal nañ békk ci yonente bi seetu ko ndax dafa wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa xayrun mimma yajmahun mooy ngëneelul yàlla ak yërmande yàlla moo gën a yayoo ñu di ci békk moo gën tamit ci àdduna ak li ci biiram te yërmande ji gën a rey ci suuf mu yonente bi wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin li ko sëñ bi waxe arju bi rahmatihi lmuhdaati sayidina zawri madinatahu daara rayahini xam ne ar rahmatul muhdaat yonente bi moo ko tuddoon boppam innama ana rahmatul muhdaatun mooy yërmande laa joo xam ne yàlla dama jël sànni leen ci sànni ma ci seen biir rek dama leen a may alquran leeral na ci aay yu bare bari daraja ji yonente bi am ba tax ñu war koo tagg mu jàng laqad jaakum rasulun min anfusikum xafisun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim leeral ji ñu ne am na yonente bu ñëw ci yéen boo xam ne moo leen gën a yërëm seen bopp moo leen gën a yërëm seen bopp ku xeer lool ci ngeen jub ak ngeen texe kooku nag loolu dong taxu oroon naa tax guddi juddoom bu ñëwee ñu di ko màggal ak yittewoo moom la sëñ bi tàgge ci laqad jaakum qad jaana maadian lakum min allahi fil haqqil hakiimil muqaddim alquran it leeral na yonente bi mooy ki ëpp yërmande ci kaw suuf yërmandeem ju bari jooju noonu sax moo tax saxaaba yi ñeme ko ba gëmoon ko nekk ci wetam fa bima rahmati min allahi linta lahum walaw kunta fassan xalisa alqalbi lan faddu min hawlik leeral tamit ne yonente bi moo gën a rafet jikko ci kaw suuf te mooy wa innaka la ala xuluqin azim loolu nag Aysa da ko firee ne jikkoom moo doonoon alquran lépp lu rafet ci alquran rek yonente bi melo woon na ko suñ boroom it leeral na yonente bi daraja ji mu am ba wax ne su fekkoon bu ngeen mooyee yàlla da ngeen di waaxu dem ci yonente bi ne ko mu sàkku leen jéggal ci yàlla su leen sàkku leen jéggal yàlla dana leen jéggal walaw annahum salamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru wastaxfara lahum rasulu la wajadu llaha tawaaban rahima loolu nag yonente bi ci boppam leeral na ko beneen addis boo xam dafa wax ne sama dund aw yiw la ci yéen ndax lu ngeen soxla ci ñu leeral leen ko ñu leeral leen ko waaye sama faatu aw yiw la ci yéen ndax seeni jëf yi ngeen di jëf yàlla dama koy wan la ca baax ma sant ko ca lu ci bon ma sàkk mu jéggal leen mu daat leen jéggal ba tey alxuraan xamle na bépp bunt bu waay jaar bu dul yonente bi rek deesu la nangul wala wa rabbika la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma sajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima loolu tegtal la ci ne kon weneen yoon wu waay topp wu bokk teg yoonu yonente bi nga xam ne moom la suñ bi doon leeral rek du yoon wu jub leeral na it ne ku jaar ci yoonu yonante bi kooka bu ëllëgee mooy bokk ci ña tex li waral aaya boobu wàcc yi mooy saxaaba yi dafa am ci koo xam ne dafa jékki-jékki am njàqare lool di jooy li ko yonante bi laajee mu ne dafa xam ne yonante bi àdduna bii mu nekk tàggoog moom benn fan dong mënu ko muñ ndax bëggum ko bëgg te xam na ne buñ demee ba ëllëg kawe daraja bi yonante bi tax na duñ bokk fu mu nekk tàqalikoo googu ñu nar a tàqalikoo nag moo ko tiitloo suñ boroom wàcce wa man yutihi llaha wa rasula fa ulaika ma allazina anhama allahu alayhim min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina wa hasuna ulaika rafiqa xamal leen ne li leen yonente bi yoon ñu leen di jaarale ku ca jaar bu ëllëgee yaa ngi mooy bokk fu mu nekk nee nan kero saxaaba yi bég nañ ci aaya booba aaya boobu mbégte moo xam ne mosuñu bépp mbégte mu ni toll ba tey xam nga ne suñ borom ci boppam leeral na ne topp yonente bi mooy topp yàlla man yutihi rasula faqad ataa allah kon loolu moom itam daraja ju rëy la bokk na ci kawe darajaam ci ñu ko alquran leerale tere bi mu tere saxaaba yi ni ñu wootente ci seen biir ñu koy woowee noonu yonente bi ni ñu wax yaa fulaan yow diw yonente bi dañuy bañ ku ne ko yaa muhammad bëgguñu ku ne ko yow muhammad ni ngay woo keneen ci turam ñuy bëgg nga woowee ko yow yonente bi wala yow sang bi wala yow ku baax mooy laa tajaalu duha ar rasuli baynakum ka duha i baadikum baada ñu ngeen wootante seen biir bënk bokk na ci li leen alxuraan yare tamit wan leen kawe daraja yonente bi ñu leen bu leen toogee moom bu leen yëkkati seen i kàddu laa tarfahu aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an tahbata amalukum wa antum la tashkurun xam nga luy yàq jëf ci alxuraan leen rek la muy bokkaal yàlla beneen bi mu ko ñaarale nag mooy yonente bi wax ngay waxandoo moom wala yëkkati sa kàddu muy gën a xumb kàddu yonente bi nee na bu ngeen ko defee seen jëf mën naa yàq su du ngeen ko xam am na feneen inna alladina yunaaduunaka min waraa'il hujuraati aksaruhum laa yaqiluun ñi nga xam ne dañu toll fële naa la yow yonente bi di la sàllalu duñ boroomi xel nga xam ne kon moom leeral na ba tàyyi na yonente bi borom daraja ju kawera kun war a war mal la moom yonente bi tamit wax na ci ay hadiis yoo xam ne da ciy tegtale nga neelam ngir bëgg rek nit ñi teg ko fam ko fan ko war a teg ak cofeel gi ñu war a am ci moom ñu am ko tagg yi ñu ko war di tagg yi ñu di ko tagge noonu am na ku mu wax ne inni inda allahi la xaatamu nabiyyin wa inna aadama la munjadilun fii tinatihi nee na bi ma yàlla di bind li ma def may ki mujj ci yonente yi aadama ma nga ca banam ba kenn bindagu ko hadis boobu nag hadis bu wér la cër bi tudd afdalu manaqib ci abdullahi as siddiq alxumaari yi moo ko def leeral na ci addis yi ñu bëgg a tudd fii yépp ne lu wér la benn bu ci ne saxaaba yi nett li nañ ko loolu moom la ko sëñ Tuubaa teg tagge ne ko la anta lasi ontiita xidman nubuwatan wa aadamu bayna al maai wa tiini yan jadi am na ku ñu wax it may sara nee na dama wax yonente bi ne ko kan nga nekk kañ nga nekk ab yonente kañ nga la yàlla def yonente mu ne bi yàlla bindee asamaan ak suuf bind aras ak kursi yu daa bind ca kaw aras laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah booba nee na bindagut aadama aadama mi ngi ci diggante ruu ak yaram nekkagut mbindeef nee na bi mu bindee àjjana ji nga xam ne ci lañ leen war war a dugal moo ko xawaa bu leen bindee mu bind ci kaw rido yi ak ci bunt yi ak ci xobi garab yi lépp mu bind ci muhammadu rasulullah moo tax nee na keroog bi mu bindee aadama aadama daa xool fu mu xool rek gis sama tur bi ko saytaane bewloo ba mu def mooy yàlla googee moo ko xawaa ci sama barke ci barke turu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la jéggaloo suñ borom suñ borom jéggal ko Aïsa it ñett le na ne yonente bi nee na jibril dama wax ne wër naa penkook sowwu àdduna bi yépp gisuma ci ku mel ni yonente bi wër naa tamit àdduna lépp gisuma ci askan wu mel ni askan yonente bi loolu it kaweeg daraja lay tegtal daana wax ne man maay sangub doomu aadama yowmal xiyaam man la sama bàmmeel bi njëkk a set maay njëkk a ràmmu te bu ma ràmmoo yàlla ràmmu looma loolu ci ngëneelam la bokk loolu nag sëñ bi tàgge na ko ne awalu man yaqrahu baabal janna ahmaduna al muxtaaru muhyi sunna bu ëllëgee ki njëkk a fëgg buntub àjjana mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la bàmmeelam ñu njëkk a set moo njëkk a dugg àjjana mooy njëkk a ràmmu boobu tamit danañ ko leeral ci ginnaaw mooy li sëñ bi wax ne yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra man rahima bis ba nga xam ne kenn du ñeme suñu borom ñun ñëpp kenn ku ne da ngay taxaw naan sama bopp sama bopp mel mu yonente bi mooy taxaw naan suñu borom sama xeet bi sama xeet bi kaweeg daraja googu nag moo tax nit ñu baax ñëpp amoon gis-gisu ne bunt bi gën a gaaw ci am ngërëmul yàlla mooy bëgg yonente bi ak tàgg ko ndax suñu borom dafa mel ni buur boo xam ne dafa woote ne wuyu leen ma ba noppi nag am na kum teg ca bunt ba ko sopp ko ak bëgg ko mooy jàllale ci moom ku jàpp ne nag kon fii moom ab leetar la boo xam ne da koo indi noppi na ca nga jóg jaaral sa bopp da nga dem ba àgg ci suñu borom ba noppi taxaw ci bunt ba wala seytaane jàppaat sa loxo réeral la faaw nga jaare ko ci bunt bi nga xam ne moom moom la nga nañ jaare ci moom te mooy Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom yonente bi nag dafa am ay jawriñ yu bëree bëri ñoo tasaaroo jawriñ ba ca gën a màgg di Seexul Xadim radiyallahu anhu